carrière de a Sara Sara bi na xanaa alkarim la nekkoon carrière de a Sara alkarim la xanaa ba aada booy bawal puuse bawal deux xarit baa ngi li laa nangu at laam bañ mais cible bi moo leen di boole moo leen di tàqale yéen mat waaw ah, règlement bi leen di wax arrêté laaj na juge yi ndax pare nañ waaw na ko arrêté pare arbitre sifflé na diggante carrière de Assara carrière de Assara Sara moo ñu wan ginnaaw carrière de lañ jàkkaar lool sa ñaari xale yaa ngi noonu eh carrière dóor na ko gauche droite gauche droite doom daan doom ey eh, waay Sara daan na Sarata xoolal ma as asa ngay sibile xoolal ma ménagère baa ngay sibile ménagère baa ngay sibile ay waay asa ngay sibile ay waay asa ngay sibile asa ngay sibile ménagère Sara eh, xoolal ana ana boy boo dem na boo dem na si Sara boo ànd ak Sara di boo dem na si Sara jëli ko 100% parcelle la kon kon 100% parcelle la.